Euh, jamono la xam naa ni sax tu lu ma man lool ndax yaram bu sutante waaye ñoo ngi sant yàlla waaye damaa gis bokk yu bari ñi di ma yónnee message ñi woote te xëy na ñëpp mënuma leen a tontu ma bëgg cee def ak leeral gu ndaw rek fekk ba jamono ju gën a yaatu coow li nag dafa mel ni bari na lool ku ne ngi wax ku nekk li ko tax di wax waaye li xew lan la lan moo xew nee nañu euh, Cheikh Omar Diagne dafa ñàkke war ma kilifa yi dafa war a démissionner ak yeneen yu mel noonu waaye man ma sampub laaj lan moo xew réellement li xew lan la ndax dafa am lu mu wax wala dafa am lu mu def lan moo xew ndax kat yàlla dimbali nañu ñu roote ci Cheikh Abdoul Ahad ba ngelaw du mu yóbbaale jikkoy ëkk yi tamit lañu yore Euh, ku yaakaar ne mën nga ñu yóbbaale ci dara nag da nga xamoo sa bopp xamoo ñu itam ndax ñun kenn duñu yóbbaale ci dara lépp lu ñuy dugg danañ ko seetal suñu bopp ba xam lu mu doon la aju noonu ko Cheikh daan waxee li dikk lu ne ak la ko ci indi lu ne danañ ko seet kon nañ xool li xew lan la li ma fi gis ci lu bees mooy ginnaaw bataaxal bi ñu gis Omar Diagne la kon dama naan Omar Diagne moom moo gàntal sakkuteefu comité d'organisation moom ci li mu bind ci këyit bi bu màggal gi te président comité d'organisation bi sëñ Bassirou Abdou Khadre génn na wax ne ñoom sàkkuwuñ ci ñoom dara ndax seen sàkkuteef yépp euh, defal nañ leen ko kon mu mel ni benn commission bu bokk ci comité d'organisation bi wala boog sëñ Cheikhouna moom sëñ Alaaji Baara moom moo ko moo bind bataaxal ñu imputé ko mu tontu ci man nag loolu awma ci problème awma ci problème ndax gàntal ga ba mu amee fi saasa la mbir ma réglé te noonu mu réglé aw yoon la woo wane woo xam ne moo gën a dëppoo ak ni sëñ Touba bàyyi woon mooy ku la manal sañal la ba tax na bi ñuy taxawal jumaay njaareem dañu woon ku ne na ci def sa yëfi bopp te yoon waa ngi nii lu ngeen di defat yëpp na ngeen ko defee nii kon alhamdulilahi rabil alamina gàntal googu man sant naa ci yàlla ndax tax na mbir ma saafarawu te at yi di ñëw allah day gën a saafarawu gan ñi gën a bari te bu boobaat duutuñu ko jaare foofu dañ koy jaare ci fin koo rek loolu ma xam la rek ni wax dëgg yàlla koo xam ni dalal nga ñeenti association islamique muy la présidence de la république ci teewaayum moom Omar Diagne nga débloqué une centaine de millions exactement cent dix millions jox ko quatre association islamique te benn bi rek am na quatre vingt millions muy años bi nga xam ni moom la imam Moustapha jiite woon te Omar Diagne jiite ko tey ji yaakaar naa ku def loolu war ngaa mën a jàppale la commission des affaires étrangères et bu comité d'organisation bi ci loo xam ne matul sax quinze ci ay gan yoo xam ne leer nañu li demu ci poosu kenn mais bref wax naa li ma ciy wax ne man sant yàlla laa ci def waaye damaa xam ne qui peut le plus peut le moins ku mën a def une centaine de millions ci préparer tabaski jox ko ay imam war nga ko mën a defal tamit la communauté mouride wala boog sax sénégalais yi ngir màggal gi ndax mboolee seen ñoo ñëpp léegi nga leen defal benn bi la kon ku def lii war nga ko mën a defal ñii itam léegi nag ma dikk ci beneen bi nga xam ni laa fi gis lu beesaat lu tax xëñ na ñuy wax lu bokkul ak wax yi ñu génne woon bii wax na ni dañu war a améliorer mbindum mag ñi euh, ndax lu parfait amul à perfection amul nit ñi dañ ciy tendre kon nag war nañ ko parfaire na perfection amul nan la ñuy rek moom kañ dañoo war a wax ni c'est un travail continu rek mais bref loolu yi tamit man wax dëgg yàlla awma ci problème dafa am question yoo xam ni dama koy posé wu rek mooy ni bu fekkente ni dañoo war ni dañuy euh, améliorer seen mbindum mag ñi c'est améliorable ce n'est pas parfait ok d'accord mais améliorer leen dans quel sens est-ce que sur le plan littéraire la maanaam naxu bi la ndax maanaam sur le plan grammatical ndax dafa am ay yàq-yàq yu ci nekk wala qu'est-ce qui se passe yoo xam ni dañ leen a war a corriger wala dañ war a améliorer seen mbind wala seen xam-xam ci wàllu arab fa mu toll woon tey adduna weesu loolu xam-xam bi langue bi gën naa riche loolu dañoo war a jéem a xool loolu pour li ñu bind ñu sukkandiku ci bindaat leneen est ce que loolu la bëgg a wax wala boo est ce que c'est sur le plan des sciences religieuses kilifa yooyu nga xam ne bind nañ ci tawxiid bind ci fiq bind ci tasawuf loolu ndax lañu ca bindoon sukkandiku ci alxuraan ak sunna ak ijma ak euh, waroom xam-xam yi nga xam ne dëppoo nañ ci ndax loolu la bëgg a wax ni loolu la ñu war a améliorer wala bokk ci moral islamique li nga xam ni ay adab la muy ay teggin ay valeur yoo xam ni dañu koy digle di ko santaane ak yu baax yu ñu war a def di ci wut aw yiw ndax loolu la bëgg a wax ni dañ koy améliorer wala ndax ci yoon ñoom yi ñu jaaroon di ci nga xam ni théoriquement bi ñu jàngee liñ jàng ba noppi dañoo am di ci dox lañuy gis te yoon wa am ak di am yuñ cay junj est-ce que loolu la wax ni dañ koy améliorer est-ce que li ñu am ci seen boroom nag nga xam ni léeg ñu tudd ko léeg-léeg ñu am luñ ci junj ndax loolu la wax ni dañ koo war a c'est loolu dañ koo war a teg ci penc mi xoolaat ko man comprendre ma ma concrètement lan lañu war a waaye àla xaal man loolu gêné wu ma gêné wu ma parce que dafa wax ci généralité li mu wax lu aérien la li mu wax xawma ku xam lan la waaye man xawma li mu wax ndax boo naan dañoo war a améliorer dara da nga ñuy jox ay exemple ñu xam li ngay wax lan la bu fekkee da nga jàpp ni bind ay njuumte gee am da nga ñuy jox ay la waaye ala xaal man loolu mënuma koo mënuma cee taxaw mënuma koo jox benn crédit ak benn importance parce que ki koy wax mooy kan ki koy wax moom jàngul diine jàngul arab maa ngi moom ñoo yem li mu jàng français la njàngum français moom mu jàng produire na ci benn lettre lettre bi quasiment benn page la bi muy tontu comité bi li ci nekk ci faute faute toy na ni inna kon moom moo toll ci ñu koy corriger ak di ko teg ci yoon waaye moom tolloogul ci li mu jàng képp di ci corriger kenn waxuma laa la mu jàngul nag kon kooko ku bàyyi xel jooju wax man finalement yow yaa may jaaxal ndax gone goo xam ne parental la toll ci euh, en réalité di di raam ba noppi boole ko xiibon su fekkee moo tëkku mbërum làmb man ci tund wa naan ko danaa la duma loola ñu naan nan ca wooteeg nan ca diisoog nan ci waxtaan ak balaa gone gi di def lii man wax dëgg yàlla ñay woote ca loola ñoo ma jaaxal waaye du waxi gone gi ndax kat dox ba dañu doon seen weer wa ba yàgg ñu ne weer waa nga weer waa nga ñëpp ni weer waa nga muy wëlbatiku ñu weneen a ngee ca ñag ba wax dëgg yàlla weneen a ngee ca ñag ba nag buñ ci bëndi indi débat man ñi bëgg a indi débat bi man ñoo ma jaaxal alors par contre nag moom mi nga xam ni moom moo wax lii ah. moom mi bëgg corriger amul background bi amul bagage intellectuel bi amul profil bi encore moins xam-xam bi pour ni dafay améliorer yu sax waxuma laa di améliorer njàngale ak waxi mag ñin ci bàyyi te loolu jërul coow warante ko xam tekki tubay dañu jël ay téere jébbal ko ko may ko dix ans fukki at mu lëlu ci te wër àdduna dem woote ñu ko ci jàppale su dix ans yi ma tey incha allah ñu joxante rendez-vous toog ci penc mi mu jox mu wax ñu lim ci amélioré ci mboole nan mboole seen nag muy mbindum Cheikh Omar Fouti mbindum euh, Seydi El Hadji Malick mbindum Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass mbindum Cheikhul Khadim kenn ku ci nekk ñu jox ko ci ay téere bu fekkente ni xamagul ci ban sens lay amélioré nan jël téere yi jox ko ko may ko fukki at te may ko yi tamit jàppale ko ci mu mën a wër àdduna dem wuti ñu ko jàppale ci critique ba muy wax ak ku ko mën a amélioré mbind moomu bu dellusee bu fekkee gis na lu ci amélioré ñu ne alhamdulilah loolu xam-xam la yokku après on avance. léegi nag ñu war a interroger wu ci wax kan la kan mooy Cheikh Omar Diagne wala kan mooy Omar Diagne man de sañu maa wax ni xam naa ko ndax xam nit lu jafe la ndax nit ci boppam sax xamul boppam. dafa am loo xam ne xam na ko ci boppam am loo xam ne ni ma ko xamee ci boppam la ko ñëpp xamee ci moom am na loo xam ni moom xamu ko ci boppam te nit ñee ko xam ci moom waaye am na loo xam ne nit ko ci moom moom xamu ko ci moom yàlla mi ko bindoon rek ko xam ci moom kon sañu maa wax ne xam naa nit waaye am na lu ma xam ci moom ndax on a ensemble te it bari aana ñoo xam ne buñ ko xamee tey surtout ci place publique bi découvrir ko yàlla mi dogal moo ko dogal waaye am na rol bu mu ci joué li ciy firnde mooy euh, jàpp naa ci loxoom yóbbu ko ba ci sëñ Muntaxa waaye jaamihu sayfiya nga xam ni samay mbokk ak samay wëllëre rek fa nekk euh, thématique yi ñuy choisir ay jamono tànn nañ ci diisoo ak man may ci participer ci élaboration tenue wala sax ci euh, tànn nit koo xam ni dana ko mën a def ba yóbbu naa ko fa mu def fa waxtaan itam ak yeneen barab yu bari yoo xam ni moom xam na ko xam naa ko man li ma xam ci moom la ma ca waxoon laa ciy wax ba tey ku bëgg lu baax la ku bëgg la lu baax la te lu baax jaral na ko lu bari te loolu nag lu ma xam la mënumaa sukkandiku man ci lu may dégg ndax nit li sëñ daa wax rek boo seedewul ci moom li nga xam ci moom ak li nga jëflanteeg moom seede ci moom loo njot ak looy dégg dong wax dëgg yàlla loolu euh, seede aw fen la mooy chandatu jour yi loolu ñun noo koy teet fas nu ko yéene def ba tax na li ma xam ci moom mooy bëgg lu baax ku bëgg lu baax la lu baax jaral ko lu bari li nu xam la ñu seede wa ma shahidna illa bima alimna waaye nag xam nañ ci moom it ñàkk a ràññee ñàkk a ràññee gu fés gu wér goo xam ne ku ko xam te xàmmee tuuti yewit da xam ni ràññeewul ñàkk ràññee gi li ko firndeel bari na ndax man waxuma di wàcc tey combat bi ñu nekkoon muy combat bu rëy boo xam ne sénégalais yi yëpp wala li ëpp ci sénégalais yi rawatina kilifa yi ñëpp fédéré wu ci ànd ci nga ubbi ay fonds ci ñooñu ñëpp ba ñu ci bari tayyalaat loolu ku ràññee du ko def ndax ñun on avait besoin de fédérer waaye soxlawuñu fu nañu ubbi fa front ku ne jàmmaarloog yow loolu ñàkk ràññee la benn beneen bi ci def dina wax lu mu xam dina wax lu am njëriñ lu wér la waaye dina wax itam lu mu xamul ndax ay valeurs nucléaires boo ko waxee nit ñi dañuy ree bay bëgg a dañuy ree ba seeni rangoñ fastant booy wax ay e, doctorat yu bari yoo am te kenn xameesul fan nga soutenir kan moo doon sa directeur de thèse ñan ñoo doon membre du jury bi booy wax ay spécialité yu bari yoo xam ne daanaka mën nga koy lim ni champignon di màggee noonu lay màgge bis boo xëyee doon spécialiste ci benn beneen bu bees bay wax ne da làkk ay làkk yu bari ci fukk ak làkk fukk ak benn ba yegg nga ci làkk bi njëkk a làkk ci kaw suuf si sax léegi xam nga ko te une première am na mooy delloo si waat nga abba ba te loolu mu ngi soog am ci kaw suuf léegi loolu danga ko baaxee nit mais loolu délire mënu koo weesu nga dolli ci ni ay pomme de lune chinois yi dañuy bay ci euh, weer wa loolu loolu euh, yaa xaytu Mawlana fu mu am dana wax lu mu xam mais dana wax lu xamul ñun ñii lii may wax ku mu neex demal deux mille bi ñuy def journée xeex mbon gi ci kuréelu le collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ànd sàmm yi booba man maa toog on était cinq sur la table man maa toog je pense Adam Bouk moo toog sama droite Cheikh Omar moo toog sama gauche il y avait euh, la la présidente des femmes ak le président des jeunes ñoo toogoon ci côté yi ñoom je pense ku ci nekk waroon na lu jox dix minutes su ma fàttewul am lu ñu la waxoon ni traitel aspect bi avant man may def sama communication je pense moom li mu waxee waroon a wax sur le plan international ak mbon bi bi muy terminé gis nañ benn kaamil bu mu fa yëkkati wax ci ay wax yoo xam ne biñ ko vérifié dara amu ci dara amu ci ba nga xamante ni ñooñu naroon nañoo topp ci yoon suñu kuréel bi keroog la naroon a tas mais heureusement am ay nit ñu ci yem ñoo xam ne ñu baax lañu attiré suñu attention ñu topp ko ba ca kaw ba ñi ci waroon a jéglu ñëpp man ma jéglu leen personnellement keroog ngeen gis moo waral bi ñuy def suñu manifestation ba ci bii ñu def le 20 février 2022 biñ nee moom Cheikh Omar day jël kàddu dama leen du fi jëlee kàddu parce que li muy wax non seulement contexte boobu propiceul sax mais man na laa dugal ci loo xam ni en réalité bokkul sax am nañ tënkoon te lii keroog livre bi téere boobu Adama Mboup moo ko andi woon bi mu ko andee ci veyu journée bi mu yëkkati ko ma ne ko lii kenn ko boole ci thématique bi parce que journée xeex mbon gi la woon ay thématique yu bari lañ doon abordé ma ne ko téere boo xam ne yaa ngi koy soog a gis gëstoo goo ko nan nga mën a jëlee téere boobu rek dugal ko ci wax ci suba wax ci loo xamul su ko defee nit ñi am bunt bu ñu jaaree ne lii nga wax du dëgg lii du dëgg lii du dëgg loolu day dindi crédibilité nit nit lu muy wax war na koo xam kon téere bi dencaat ko aadama denc téere bi bi koy déposé ci otoom ci la ko àbb téere bi bi mu xëyee ñëw brandir ko wax ko te waxoon nañ ne bu ci kenn wax finalement loolu dalay jaaxal sax da nga naan kii qu'est-ce qu'il concrètement ndax def ñu bëgg a détruire de l'intérieur wala qu'est-ce qui se parce que on avait convenu que ni téere bi bu ci kenn wax li may wax ku mu neex demal nga def recherche bi da nga gis ni téere bi jël na ko brandir bi ñuy daaneel ay kàddoom alors kon dana wax lu xam waaye dana wax lu xamul beneen bi ci des tamit mooy dina sos sos blanchiment d'argent boo waxee ni réew mi blanchiment d'argent mi ngi am ci diggante trois mois muy muharram safar rabiul awal maanaam ñetti weer yi jiitu ci atum euh, hijriya wala boog atum wolof ni rek bu fekkente ni ci lay am nga xam ni loolu événement bi ci gën a rëy ci muharram màggalu daaru xuddoos la Touba lay amee even weer wi ca topp événement bi gën a rëy ci àdduna bi laa wax Touba lay xewee muy màggal 18 safar bu dee gàmmu ñu xam ni Tiwaawan dafay gàmmu Medina Baye dafay gàmmu mboolem ëtti diine yi Sénégal yëpp dañuy gàmmu Sénégal yëpp def ko nga ni ci diggante boobu te sëriñ si ñoom ñoo def blanchiment d'argent bi mais loolu tooñ mënu koo weesu sos mënu ko weesu xanaa bu dul dara Sénégal nga xam ni vrai passoire la sax lu ne lu jóg dugg fi xanaa xaalis boobu am na fu mu jóge ko ko fi dugal fan la ko jaarale xanaa jaarale ko ci circuit bancaire wala da koo def ci valise embarqué ci ab aéroport wala daf koo def ci otoom dawal oto bi nan la ko dugalee ci réew mi nga tuumaal ay sëriñ ni sëriñ si ñoom ñooy blanchir xaalis boobu euh, ci seen i dañuy laal commission dix à vingt pour cent mais ay fas la yamul ci loolu ah euh, teg yeneen yoo xam ni boo ci dugg sax doo ci doo ci génn boo ci boo ci dugg finalement da ngay mujj sax ridicule da mujj wàcce sa bopp alors mu teg ci itam mën a tooñ mën a tooñ ndax bu fekkente ni du ma jaaraat nag ca ñamu tuddoon waaye ay xalifa ci biir réew mi nga ni xalif général sàngam imbécile la ñu baal ma wax yi mais loolu moom moo ko wax ñu ni déete waaye mu ni imam ratib sàngam imbécile la ñu ni déete waaye mu ni way imbécile lu saaga mooy quelqu'un qui est faible d'esprit tout tout ñu ni déete waay mu ni xalifa sàngam matul kilifa ndax day déglu musique ndax lan nee na dabbe ñu ni jëtawaay nga ni xalifa sàngam dealer la loolu ak tooñ la yaa xayti mawlaana ak tooñ la ndax nit ki boo seetee ba ni man mutuma kilifa xamal nit ki soo xoolee ba ni defuma ko kilifa wala matuma kilifa am na ñoo xam ne sii def nañ ko kilifa mooy seen kilifa te mat na leen kilifa te doyloo nañ ko comme kilifa te nga séq ñooñu ci penc mi te mu leer la ne mbir mu mën a doon boo ci duggoon ci diine ñu attan ci loo xam ne attanoo ci nga bëgg leen faa jàll dem ci seen kilifa naan matul kilifa seet beneen xalifa ni moom dileer la ndax Macky Sall da koo jox temps moom it mu tabaxal ko kër ak yeneen ak yeneen yoo xam ni kon loolu ak tooñ la goo xam ne daf koy def te muy lu wér te loolu man wax naa ci guddi wax naa ci bëccëg ah yam ci nit koo xam ne dañ naan la yow boroom xam-xam nga boroom xam-xam am na kàddu yoo xam ne di génn ci làmmiñam la mët des imbéciles des cons <coughs> baat yu mel noonu boroom xam-xam du waxee noonu ndax boroom xam-xam kuy leeral la kuy gindee la day fekk nit ku nar a surux mu yëkkati ko nit fekk ku jàdd ci yoon mu teg ko ci aw yoon waaye du doon nit kuy violenter nit ñi ak leen heurté loolu boroom xam-xam du ko def xam-xamam moo koy tàqaleeg loolu loolu yëfi gone la gone yi def loolu di dagg santeeg ak yëfi jigéen bu nu nekkee ci pindub teen ba coow li ci pindub teen ba gaa ñi amul baag la loolu woykat ba wax na ko waaye it euh, ku ñàkk ràññee la li wolof di wax xamadi xamadi ku ñàkk ràññee combat bi ñu doon def nga xam ni ñépp lañu fédéré kan mooy nekk ci combat bu tol noonu di jàmmaar la waat ak ñenn ca ñooña ubbi front nit ñi kenn ku ci nekk naa def ko problème personnel ba nit ñi daanaka tay ba nga xam ni tey combat ànd sàmm jikko yi fracture bi ci njëkk am Cheikh Omar ko andi ba mu jëlal biir ànd sàmm jikko yi dañuy rayante suñu biir ñii jëlal ko cause ñii taxaw fële kenn ku ci nekk jàmmaarloo te lii de wax na ma ak moom guddi wax na ma ak moom ci wét wax ak moom ci wéttuliku ba jàpp ay ndaw sax yabal ko ci ñoom di di di di yeble pour ñu dem waxtaan ak moom waaye gis ngeen ko ma mujj xam ni lii nattub yàlla la li ma ci war mooy ma xam ne nattub yàlla la te la ca war ma rafetal ko waaye nag duma ma far kuy tooñ du ma ànd ak kuy tooñ tey tamit du ma xam kenn ni da ngay tooñ yi tamit ma faat la ci loolu loolu ñemewu ma ko sax ñi ma ragale tooñ noonu laa ragale far kuy tooñ jamais ba tax na bi ñu ko jàppee sax nit ñi ba def nañ pression naa jóg naa ci woote naa dama leen defuma ci benn jéego lu dul man jël naa ay avocat lii may wax boo ko Bocar Absa ndaw ak mu Moussa Sarr ñoom ñaar ñëpp ku ci ne maa la woo pour nga dugg ci dossier bi défendre ko doot son avocat man leen foofu laa mën a yem ndax kóllëre lañ feq waaye nag li wér te wóor mooy duma ci woote duma ci dox ndax toog na fii ci penc mi lu ne mu wax ko ay kilifa ak i nit kenn musuma cee dégg kon tey jii su fekkente ni jàppante naa nit waxanteeg moom kooko ni damaa tooñ yóbbu ko ci yoon su ma jógee taxaw jël sa défense dafay mel lan daan def lépp ànd naa moom ginnaaw noppi woon naa ci ba yu njëkk yi damay noppi ci bu mujj bi tamit duma ma ci wax publiquement jamais du ma ko def loolu nag xëy na mën na maa yemandi foofu sax waaye mbir yu doy waar la yoo xam ni boo ko seetloo ba ci biir sa xel mën naa dem ci yu bari nag ci nekk nii te mas naa ko wax ci suñ benn ndaje man leen sa combat man ragaluma ñu jàmmaar lool mbootaay yi ñu jàmmaar lool te ñu taxawee xisbu seytaan ragaluma leen man li ma ragal mi ngi ci suñu biir ñun ndax léeg-léeg dëkkat am noon bu xarañ te aytal moo gën dëkk ak soppe boo xam ni xàmmeewul ràññeewul ndax day rey boppam reyaale la ci te la lay rey moom moo koy def te du ko xam te lépp jublu ci lu baax rek la lay def kon nag moom su ma xoolee ci pas-pas bi mu am bokk na ci ni tarixa yi dañoo war a jóge ci kaw suuf lii ma wax moo ko waxal boppam fréquenté xamante naa moom xamante goo xam ni xam naa ne lool ci xalaatam la bokk tarixa yi dañoo war a dem ci benn époque post tarixa loolu wax na ko nit ñi dégg nañ ko te loolu itam boo ko mën nga léegi li mu mujjee wax nii mooy dëppook loolu ndax bu fekkente ni man ci wàllu koom-koom am na ay théoriciens yoo xam ne dañoo ñëwoon am xalaat yu ñu am waaye ci seen jamono am na mbir yoo xam ne dajewuñu ak moom am ñu ñëw ci seen ginnaaw sukkandiku ci xool seeni xalaat ak dégg nañ leen ñu xool par rapport ak mbir yi nga xam ne na ñu yokk ko ca sos ko ca nga xam ne dañuy sos ay courant yu bees yu yu dellu ca moom loolu yi tamit dafay mel ni loolu lay proposé ñu jóge ci monde tarixa dem ci leneen maanaam amande ak amélioré mbindu mag ñi loolu mooy la mu njëkkoon a wax rek mooy tarixa dañ fee war a jóge ñu dem ci leneen loo xam ne doonatul ci kilifa yi ndax dañuy wane ni kilifa yi amoon nañ ay njuum te juumoon nañ ci nangam ak nangam ak nangam kon léegi ñu nañ ko jéem a parfaire kan moo koy parfaire xanaa ko parfaire la kan moo koy parfaire puisque la perfection même c'est pas de ce monde là alors loolu nag lu mu wax la waxati ko te mooy lu mu gëm man nag loolu dara dérange wu ndax tëkku gone gone goo xam ni day soog a fer boole ci xiibon bu tëkkoo ki ub làmb ji ca réew ma waxuma sax tund waaye réew ma xëy ji bun ni woon ñu ni Bombardier wala wala Double walla wala wala mbër mi man ci réew mi gën fee bari doole te gën a soxor te gën a aay te mën a dóor gone guy soog a di tojal ñu koy kuus bu jógee naan kooko danaa ko duma loola ku ci indi débat yaa bëgg débat waaye loolu jërul débat ndax wax na lu jomb wax na lu mënta nekk kon loolu jërul débat man noonu laa ko gis wax dëgg yàlla gone gu togg toll ci mëq suuf daal ak tojal ñu lay kuus wax dëgg yàlla kooku moom am na yooyu soo koy waxee des ko bàyyi xel sax te loolu nit ñi xam nañ léeg nit ñi nekk ci daje wala nit ñoo wax la yenn ci wax yu doyadi yoo xam ne si wax yi yaa ko dul bàyyi xel yaay fëñ ci dem sa yoon am na lu jar tontu waaye am na lu jarul tontu kon lu waral coow li kon Omar Diagne waxu fi lu bees ci sama xam-xam man ak sama dégg-dégg waxu fi lu bees te li ciy firnde mooy li ëpp ci vidéo yi ñuy indi ay wax yu mu waxoon la waxu fi lu bees yi ñuy génne yépp nag lu mu waxoon la bu yàgg kon lu waral coow li tey kon te yàggu yëggul woon fii ñu ko bëgg a yeggale ñu ko yeggale ba mu ko fi waxee ca jamono yooya lu waral taxawaay bi lu woon noonu ñu ne ah dafa am poste yu mu am léegi nii yoo xam ne tolluwu woon ndax homme d'État la loolu dinaa ci dikkaat waaye ala xaal wax yi li ci ëpp li muy génne du wax yu mu wax léegi nii ndare lu rek li muy wax ni day amélioré mbindum mag ñi bu dee murit nag damay laaj ndonol Serigne Touba mooy lan loolu laaj la ba may laaj ci lan lanu Serigne Touba woowoon wut ngërëmal yàlla saa su ne ak fun mën a nekk rek nan la sëñ Tuubaa bëggoon ñu mel ko mooy lu ñuy def ñu doon ay jaamu yàlla yu dul jaamu ku dul yàlla nekk ci di liggéeyal yonent bi dëppale suñ mbir yépp ak sunnaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam fonk ak mbokk du nu tooñ te ku nu tooñ ñu jéggal la ngir jënd yàlla loolu la sëriñ bi incarné wane ko ni loolu mën naa nekk ci lan dellu ci dogalub yàlla man koo nangu sëñ Abdoulaye fii la toog ni sëñ Touba amul dara lu mas a lijjantil boppam daa bàyyi lépp ci loxob yàlla ba yàlla def ci la ko ca soob rek kon foofu lañ doon woo ñun est-ce que foofu lañ wuy ji mais est-ce que foofu lañ wuy ji ku ci wuy ji xam nga ku ci wuy jiwul xam nga ndax ñoo nga ca loola ab laaj la ku ne mën na cee xool sa bopp waaye nii ñu bëgg a doxal ci ñun dañuy défendre Serigne Touba dañuy dóore dañuy xaste dañuy kii dóore yi kañ la tàmbali xaste yi kañ la tàmbali ak nii ñu ko bëgg a lijjantee ndax noonoo ko war a lijjanti yëf yi du fitna ak fët fët moo koy lijjanti waaye am xel ak xam-xam moo koy lijjanti moom Cheikh Omar dafa mel ni dóor nañu xam ne sax ñun seetluwuñ ko bu nee ñu sëñ Tuubaa falu fi kenn bu doon fal fal aw ñoñom loolu koñ moo ñuy wax ni yéen àndu leen ci seen biir sax ba mën a am solidarité ngir jënd sëñ Tuubaa mi ngeen di wax te sëñ Tuubaa mi ngeen di wax jaralu leen ndax tam mën naa taxaw woote wala ngeen àndagu leen sëñ tubaa jaralagu leen sax ngeen boole seen lépp ci taxawu réew mi ak li fi sëñ tubaa bëggoon ba noppi bu ñu ngeen ni dafa bañ sëñ tubaa wala da da koy xeex ñun lan lañ def ci wet googu ay question loo xam dañ ko war a posé wu en ah, effet dañ ko war a posé wu ñun lan lañ def ci wet googu tey jii lii ñuy def nii manifeste du ko lijjanti def pétition du ko lijjanti te pourtant amoon nañ ay moyens ak teg ay levier yoo xam ne lu ñu bëgg ci réew mi mën nañ ko am mais ba tey loolu defuñu ko fi nekk nii ndax la képp koy wax ci lu mel noonu man nga xam ni lu mel noonu dama cee dox dox ba fi mu ne wératuma sax dañu mujj jàpp sax ni ku dese nga duñ la fullaal duñ la faydaal te pourtant day mbootaay gu bëgg a taxaw tey juif yi motuñu di vingt millions ci adduna bi te li ñu bëgg ci adduna bi ñoo ngi koy am ñun nag la mun taxaw waxoon rek quatre-vingt-quinze pour cent yoo xam ne si jooytu dong lañ mën nit yi ñuy jooytu nii en fait pour lan suñu organisé woon suffisamment war a mën a am suñuy député yi bopp yoo xam ne député yi jëmmi sëñ Touba dong nga tax ñu taxaw taxaw ci assemblée nationale ba demuñu ci bannière benn parti politique wala jëmmi l'islam rek a taxaw tax ñu taxaw te l'islam bu nga xam ne booba murid tijaan xaadir ñëpp ñooy àndandoo liggéeyu xam ne ñoo bokk drapeau bu l'islam ñu taxaw ca ca ca ca assemblée bare bu boobaa danañu taxaw fañ war taxaw te danañ def lañ war a def te loola manifeste duñ ci fekk waaye ndax lislaam bi jaral nañu ko ñun ñii wax ndax lis ndax sëriñ bi jaral nañu ko ay laaj la yoo xam ni dama koy laaj ñoo ngi langaamu ci ay parti jaamur ak di nangam di jàmmaarloo ci suñu biir ñun ci ay taalibe kenn ku ci nekk tëgg sa sëñ Tuuba bopp ni lii mooy samum sëñ Tuuba gone yi xamul dara ku ci jóg ni la lan yow doo murit wala euh, noonu sëñ Tuuba nga wala da ngay jàppale noonu sëñ Tuuba ñun fëkk yóbbuwuñu ngelaw yóbbuwuñu ndax yoruñu jikkoy xob fi ni dégg lañu ni dégg xam nañu li Cheikhul Khadim doon woote lan la ak fi mu ñu doon woo la te loolu liñ ci jéem bariwut dimbali suñu kilifa yi yàlla xam na ko dimbali leen président Diomaye nag man jàpp naa ni def na erreur bu rëy jàpp naa ni na erreur bu rëy ndax bu tegee ci wetam ku mel nii nga xam ni fu am wala fu fitna am dana ko wootal ba mu agsi ci wetam laal ko làmbaale képp ku ko jege kooku ku jël teg saw wet yaa bëgg ay yaa bëgg fitna te lii mu yor àndul ak béy aw ay àndul ak béy fitna itam ci ànd sàmm jikko yi moonu néewal doole ba xàjjaloo gi ci am am ci tey jii ci moom la bawoo ndax ay position yu polémique ay jàmmaarloo yu jàmmaarloog mbooloo yu bari ay ŋàññ yu mu ŋàññ ay kilifa yu bari ci biir réew mi yoo xam ne wax naa ni du ma del si waat si na ma ko waxe woon ñemewu ma ko sax ba mbooloo mi séddaloo ay kuréel ñuy dóorante suñu kii ba biñ ko arrêté man am na lenn nag ci ay nit ñoo xam ne woo nañ ma ni ma yéen kon tarixa yi leen nekkal di leen kii ñu dañuy démissionné bàyyi ko fa mu nekk nag day wane ni président Diomaye Faye day matt di ëf su fekkee bàyyi na ko fee mu nekk loolu loolu rek lay tegtale day tegtale ni ànd na ci li muy def man noonu laa ko gisee su ko ko jaralee nag bismillahi rahmaani rahim gumba neex na baat jant sono am na ñuy wax nag naan su doon tarixa yi rek jomaay du falu waaye waxu leen lu ngeen xam de wallahi alazim quatre vingt ci tarixa yi lañ bokk turux yooyu donte man xam naa ni sëñ Tuubaa amulub tarixa loolu man xam naa ko bu wér fii ko toog muy yorul ab tarixa li mu woote mooy yoon wa yonent bi àndoon ak sahaaba yi moo far mu gajj gajj ba buum ñax ba ni ku bëgg a dem ñëwal yoon waa ngi nii lañuy jaar ngir dem ci yàlla kon xam naa amul tarixa waaye su ma nee tarixa nit ñi xam nañ li ma bëgg a wax li ñuy tuddee murit tijaan xaadir laayeen laa bëgg a wax ñooy quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais quasiment wala sax plus ou moins yu ëpp ko mbaa ñu manqué ko tuuti waaye quatre-vingt-dix pour cent yi moom war nañ koo pat quatre-vingt-dix pour cent yooyu suñ àndalul mënoo voté te kilifa yooyu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa nga ca yaa ngi fonk sa beneen bi ko firndeel man nii ci sama bopp Ababacar Mbow gisuma ci réew koo xam ni gën nga ma sonn ci xeex régime bii fi nekkoon non pas politiquement mais xeex leen ci bilan mo bi nga xam ni dafa décevant ci ay ñaawteef tàmbalee ko nag ca Charlie Hebdo ja ci laa taxaw moom jàmmaarloo mënatumaa wax mukk ci lu jëm ci euh, Macky ndax man ku saaga yonent bi koo mën a doon gisatuma la xamutuma yaay koo mën a doon ci la sunu jàmmaarloo commencé ba agenda LGBT bi liñ ci taxaw lépp xam nañ ko te agenda boobu moo mujj ba élection euh, locale yi la ca xaw ñëpp gis nañ ko les grandes villes benn bokk yaakaar ñàkk ko te ñi doon campagne bi ñuy campagne la la doon campagne ku voteel benn bokk yaakaar da ngay dooleel ngóor jigéen ba looloo tax président yéen ñëpp ay fàttaliku keroog bi mu woowee waa ANOS muy association nationale des imams et oulémas du Sénégal te imam Moustapha Gueye jiite ko yàlla na borom bi dolli ko yërmande ak njëggal keroog ñoom ñu dem télévision ñëpp seetaan ko président wax leen naqaram te it sant leen ci nañu wër lu nu yàqoon ñun ñoom nañ ko defar loolu ñun man maa ko jiite te bari na ci barab yoo xam ba ma fay dem ànduma kenn man doo nga ànd am na ci barab yoo xam bi may dem sama soxna képp laa ànd am na ci barab yoo xam ne bi may dem sëñ jiili jaxate képp laa àndal ci biir Sénégal am na ci barab yoo xam bi may dem nag am na ñuñ àndaloon mooy mooy état bi ci gën a néew mooy bi ñu déparé fii à partir état bu euh, Dakar ba Touba jaar diggante Bambey ak Ceneba euh, lañ njëkkee keroog Bambey euh, Diourbel dem Gosaas dem Touba délégation bi dellusiwaat maa ngi nuyu bokk yi volontaire woon yëpp ñu ànd ba foofu waaye li des lépp maa ko volontaire ba maa ko loolu bi mu amee ñoom lañ doon wut bëgguñu ko législative yi dikk yëf yi gën a dàbbaliku ñetti première yi am fii pour la première fois régime bi nekk place organiser ay élection législative ba noppi ñu gañe ko ci maanaam li yi voté ñi ci ëpp voté lu ñu Benno Bokk Yaakaar benn ñaareel ba Benno Bokk Yaakaar euh, raw gàddu gee waral waaye bu fekkoon te ni ci euh, du woon raw gàddu li am ci nombre de sax duñ ko am waaye ñoom dañu caa teg perte dëkk yu mag yëpp ñu gañe leen waaye foyer religieux yëpp yi tamit ñu gañe leen fa c'était une première mosul am ci Sénégal foyer religieux yëpp régime bi perte ko mësul am un député nga am quatre vingt deux députés opposition bi am quatre vingt trois yi ci def ak opposition lañ tamit kon quatre vingt trois députés la opposition bi am parti au pouvoir am quatre vingt deux députés malgré irrégularité am ci élection yi yëpp loolu te ñoom lan lañ campagne ku voteel Benno Bokk Yaakaar euh, da ngay dooleel ngóor jigéen kon ñun xeex bii amul ku nekk ci biir Sénégal gi di fi koo xam ne ëpp nga ñu ci taxawaay amul dafa fekk ne nag ñun yàlla ak réew mi rek ka taxoon ñuy def soxlawuñ ci benn publicité communication ak leneen luy nuru ak pay ca loola lu dul pay du jóge ci yàlla loolu moo waral gis nga ak yi ci dolleekuwaat injustice yi ci tegoo ba élection présidentielle bi mu dikkee ak xëy na président Macky gisin beneen bu mu ci amaat tax na fi mu ne gën a yomb ba opposition bi jàll au premier au premier tour kon bu leen xalaat mukk ni nit ñi nekk ci tarixa yi amuñu ci taxawaay man fii ma toog tey jii di wax li ma sama yaram di sutante sutante tàmbale ca Medina Gunaas ba ci Pire ba ci Yoof gi ak feneen fu mu mën a doon xalifa yi ku ma ci wax ni ma bul fanaan ci réew mi donte minuit la woon bul fanaan ci Dakar gi du ma fi fanaan te loolu bari naa ci ay moroom kon nit ñi nañu am raison garder ku ci am sa agenda bopp nag ni da ngay xeex tarixa yi xeex ko te fësal ko te bañ cee rax leneen ñu xam la waaye am na ñoo xam ni seeni wax ci loolu sax jot commentaire ndax tuuti nañ ci ndax gone yu maq suuf rek lañu kon nag li may ñaan mooy ni liberté wóor mooy ni président bu fekkee dafa yéene Cheikh Omar mën na ko def conseil spécial am mën na koo teg feneen foo xam ni la mu ko yéene man na ko koo defal waaye fee mu nekk en réalité da koy indil ay jafe-jafe te lii ma koy waxit wax naa ko ko man noppi naa ci na yónni yàgg nag ñu dox tuuti xam dana gis yàq-yàq yoo xam ne si dana ko yàq te moom du ko mën a defar dana ko ëpp doole te boobaa béy dana wéy mbuus loolu mooy li ma ci amoon lu ma ciy wax man mbindeef mënumaa taxa Euh, par parlo mbindeef mënu maa tax a jéng sama xam da koo wees ndax tey jii fi ñu toll ci àdduna ni mu jaxasoo ak réew mi nga xam ne ñëpp priorité la on a besoin de fédérer tout le monde pour liggéey réew mi dama ni sax opposition beeg ñëpp xeexoo bu naw mii ak bis bii yii sax jaru ko réew mi moo war a doon la priorité ñu liggéey réew mi waaye am na ay détails ak débat yu terne ak yu creux yoo xam ni bu ñu ci bëggee dugal dañuy tardeel tout simplement tout simplement am na ay enjeux yu ëpp solo yu nekk ci réew mi te dañ ko war a xam man nag li may daaneele ci sëñ Touba sëñ Touba moom damaa gis ni puissance coloniale ñëw def ci moom lu mu man te mënul ci moom dara kon gone guy mëq suuf bu jógee ni day jéem ca moom man loolu sama yoon nekku ci dama koy bàyyi sëñ Touba moom jëm te li may wax dama ko teg fu leer Serigne Abdoulahat vidéo bi danaa ko ajouté ci kii bi sax ñëpp déggaat ko waa Paris Match dañoo def benn article ci sëriñ bi ñaaw la nañu wax ko te ay sénégalais am na yu nekkoon ci ginnaaw te xam nañ leen ay yu bari jël seeni journal ba dem seen ko ko wax ko seenu naqare seenu mu tontu leen la leen tontu nag mu wax ko ci penc mi ñëpp dégg ko ni am na journal bopp am na lu mu wax ci sëriñ bi wax ko ci man nii man nag lu waaye man a wax ci ban woyof toy woyof na toy amaa jëmmi sëñ Tuubaa nag lu waay ñi mën a wax ci moom moom ñaar rek a mën a am ak xetam bañ laa xeen wa illaa ni ko yàlla def neexu la ñaar yi nag dara lu ci jar mer mbaa nga jar nga def dara amu ci ndax ki ko xetam xeeñul kooko defu ko dara yàlla muy dogal moo tax xetu sëñ Tuubaa xeeñul ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu ko yi tamit kooko feebarub ki ñaan la am kooko yi tamit ñun sun yoon nekku ci ndax mooy alal boppam ba tax na kon wax na ni alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna almuqafa man qalamiya yardahu wax ni eh, biraazu man baarizani biraazu man yubarizul muntaqimun baariza man ida talabtu min illahi jalaba wa in saraftu billahi salaba kooku man wax dëgg yàlla mbiram du sotti la mu ni sëñ tubaa du ku ñuy xeexal du ku ñuy xulool sëñ tubaa ku ñuy yaakaar la la ku ni yaakaar la suñu yaakaar dañ ko soti moom ndax gëm na ni mu wax dëgg la li mu wax ci yàlla am na ko ci kon suñu yaakaar a ngi ci moom sëñ Tuubaa ku ni liggéeyal la mooy loola mu ñu wanoon ni ku jaar dem ci yoonu yàlla loola mooy liggéey bi loolu ci la ñu fas yéene nekk waxtu wu ci nekk sëñ Tuubaa ku ni topp la mooy yoon wi amul lu mu mas a joxañ moom sëñ Tuubaa ni dem leen def ko lii sëñ Abdoulaye ko wax lu ci ne da caa kon kooka ku ni roy la dañuy topp ci ay tànkam yooyu man foofu laa nekk man Ababacar Mboup ku yaakaar ni nag am nga maqaamam jëlee ci lii xamoo sa bopp te xamoo li xew loolu ma répété waat ko man ci fii laa nekk te dara du ma fi jóg te sama bët maa ko teg ci bis penc ba bu ñu fa dajee foofa nga xam ne dara luy umpe nekku fa mbiri jàpp noo ngi daaneel suñu kàddu foofu wax ji xaw naa gudd waaye ñàkkul ni euh, mënuñu ko woon a gàttal ndax am na ci yooyu boo ko gàttalee mën naa indi ay lënt lënt loolu rek ko waral ñoo ngi dellu di ñaanal suñu kilifa yi rek ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mbooleem ñi nank foyer religieux yi ci biir réew mi yépp ak kilifa aada yi ñoo ngi ñaanal ñëpp di ñaan yàlla moom mi nga xam ne tëlewul dara yàlla ñu dimbali def ñu ay dëgg dëgg jullit yàlla na borom bi kenn ku ci nekk yaakaar da yaakaar ak ci kilifa ga nga ko yaakaaree la nga koy wuti yàlla na borom bi jàppandal la ko ci defal la ci lu koy sa njort koo xam ne beneen gis-gis nga am i tamit ci wut yàlla akum yonentam te jàpp nga ni doo ca am kilifa it